faslun li ab dog la fi zakaati ci asaka nee na asaka am na yeenti farata nga jàpp nag ñu waxal la ko benn benn niyatu naa mooy sunu yéene mooy la ngay joxe da nga yéene muy sa asaka boo joxe woon ba àggal gannaaw ba doone ah man kat war na maa joxe asaka kon lee ma joxe léegi naa ko ci féetale xam ne ma ngay joxe booba sam xel nekkutoon ci asaka waaye nag bu fekkee àgg nga ci rek bi nga koy joxe jàpp kaa joxe asaka ba ku la bettu ne la waaw li nga koy jox nag nga ne asaka laa koy jox rek mu daal di doy bu dee jurub kër wala muy wuru sa xaalis bala caa asaka war at ma dafa mat ci sag moomeel bu wér a wér nga xam ne kon sañoo koo génne te at ma matut ndax lay farata ja mooy bala nga koo génne at ma mat lépp luy xeetu mbay nag moom dañ koy takk rek ci bu ñoree xomm rek asaka dal cay war nisaab mooy tolluwaay ba nga xam ne boo ci àggee asaka door caa war leen lu nekk nag daa am nisaab ki bu dee ci mbay juróom-benn barigo bu dee ci xaalis ñaari téeméer yi nga xam ne mooy ñaari téeméer dërëmi yoon yooyu waxoon na ne buñ ko seetloo ci ay ngaraam dëgg-dëgg day tolloog cinq cent quatre-vingt-quinze ngaraam buñ xamee nag benn ngaraam bu ne nu mu toll ci CFA rek nit biñ ne biñ ko mujjee laaj deux cent quatre-vingts la kon deux cent quatre-vingts mooy benn ngaraam boo ko multiplier cinq cent quatre-vingt-quinze mu daal lay jox cent soixante-six mille six cent ko defee loolu kon yooyu jamono mooy nekk nisaa bi xaalis wurus moom mi ngi toll ci quatre-vingt-cinq ngaraam loolu mooy nisaabam du tee nag bu dee ci njàngal ni koy tuddee ñaar fukki dinaar waaye nag buñu nee benn dinaar bu ne ñeenti ngaraam la yu tegal kaaru ngaraam benn dinaar bu ne dafa nekk ñeenti ngaraam yu tegal kaaru ngaraam loolu nag boo ko def ba mu ñaar fukki yoon mu jox la quatre-vingt-cinq grammes kon quatre-vingt-cinq grammes ci wurus mooy nisaa bi wurus tolluwaayu asaka ja nag moom bu dee ci wurus mbaa xaalis yomb naa seet gannaaw bu matee nisaab moom boo ko defee fukki xaaj benn xaaj ba nga dellu ko xaajaat ñeenti xaaj ñeenti xaaj yooyee boo ci teggi rek mooy asaka ja mel ni tey boo amoon million danga koy def fukki xaaj bu ko defee xaaj bu nekk nekk ñaar fukki junni ñaar fukki junni nga defaat ko ñeenti xaaj xaaj ba doon juróomi junni xam ne kon juróomi junni mooy asaka yi million loo bari la bari la alal nag wurus muy xaalis moom noonu rek nga koy génnee nga xam ne robuxul xushuri kaaru fukkeel ba mooy doon asaka ja bu dee ci mbay su xasee mat nisaab te nga xam ne asamaan si mooy taw rek ngay bay la nga bay boo ko defee fukki xaaj benn xaaj bi ngay joxe asaka ni ki boo amoon benn ton bi fukki barigo benn barigo ngay joxe asaka su fekkee nag yaa koy suuxatal sa bopp mbaa machine ba koy suuxat danga daa am loo cay fay kon boo ko defee fukki xaaj dangay xaajaat benn ba ñaari xaaj te juróom-ñeenti yaag xaaj joxe nag benn xaaj boobee asaka mel ne bu fekkoon ne am nga fukki bërigo te yaa ko doon suuxat mbaa machine a ko doon suuxat ngay fay kon benn bërigo ba boo ko xaajee muy ñaari cinquante benn cinquante kilo ba ngay joxe muy sa asaka bu dee ci xeetu jur nag moom daa bari ay teqale lool lool waaye teqale nañ ko bu baax a baax ci yeneen téere yi ni ki al risala ak al hisiya ak mboolem téere yi nga xam ne andi nañu ko fa bokk na ci faratay asaka alal ja nga xam te lañu génne asaka ja fa mu nekk lañuy seet bu fekkee ña ko yelloon ña nga fa te am na fa ñu ko yelloo kon nañ ko joxe foofu waaye buñ ko fa toxalee di yóbbu feneen waaye lañu bañ ci toxal ba nag rek mooy mu weesu soixante-douze kilomètres ya ko wër li ñuy wax doxu wàññi am ñu koy tolloole soixante-douze kilomètres am ñu koy tolloole quatre-vingt-neuf kilomètres yi tegal sax tolone yu wuté la wër mom ci lim bo mën nga ko fa yobbu way lu ko wess mom sañu suko lumay da nga xamné fa nga ko yobbu ñoo gëna loru ñu nekk fofa ben nga nekkan ci Italie gis ne am nañu loru fofu ci asaka waye fi nga bayiko ci Sénégal ñoo gëna loru su boba kon lepp mën nga ko yonne fi len la nga joxe ko fofa asaka waxaluñ ko ay sunna waye waxal nañ ko yetti teggin yo xamne samonté ak ñom dana tax sa tuyaaba gëna bari tey bakkan moy sedd xol mais asaka ji ngay joxe sa xol sedd ci te bañ ci tang bu sedd ni limay joxe mën na ci faj aajo sangam mën na ko def ci buntu sangam dedet mais sant yalla mi nga xamne mo la jox ba ne la joxawaatal ma ci nangam te loolu lu neew neew la ca loola loolu bi sa xol tang mukk na ci sa xol sedd bu fekkee loolu dafa nekk ay qualité ak i façon doo sañ a seet la gën a yamaay nga di ci génne asaka moom sañoo ko kenn du la forcé itam ci nga seet la gën a baax nga génne ci asaka waaye nag kon nañ lay wax ne la ngay seet la diggloomu nga génne ci asaka lañ sopp nag mooy nga seet la gën a baax muy tànni fa alal ja nga génne ci asaka loola ngëneel la teggin rek la waaye waru la la neexee seet la diggloomu rek nga génne ca li sëñ laa génne ci la gën a yamaay kon nga jekki jekki seet la gën a baax nga génne ci asaka ja waaye loolu dañu wax ne teggin la ci teggini asaka bañ wañu waaliku fii ñetteel ba nag mooy booy joxe asaka ji te ragal ne buñ ko dee séen da nga ca bëgg aw tagg mbaa nga gis ca sa bopp mbaa dara nga joxe loo ko keneen te bañ koo joxeel sa bopp ne sax nee nañu bu fekkee xam nga ne doo ca ngistal doo ca bëggu tagg doo ca séentu dara moom nga joxe ko mu fés mooy gën ndax nga fàttaliwaale ku fàtte woon soñaale itam ku xawoon a tàyyeel waaye nag boo ci ragalee ngisal googu nag nga joxeloo ko keneen wala boo koy joxe nga làqoog ka nga koy jox rek kenn bañ koo yëg kenn bañ koo xam ndax ngistal bañ a dugg ndax ngistal moom day yàq diine muurum koor warteef la woo xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa wax ne dogal na ko ci kaw képp ku di ab julit muy mag muy gone muy góor muy jigéen muy gor muy jaam kenn ku ne war koo génneel sa bopp war koo génneel tam koo xam ne yaa ko war a dundal ci yoon benn bopp bu ne nag ab saa lañ ca war a joxe saa nag ba tey am na tukaay am na waaye buñ koy tolloole ci peese am na ñu koy tolloole lu yées ñaari kilo am na ñu koy tolloole ak ñaari kilo am nañu koy tolloole ak ñaari kilo yu tegal ba ci waa màkk ñu sax moom ñetti kilo lañuy wax mbaa ñu naa ñaari kilo genn wàll ak yu demee noonu waaye mel neen daal ñaari kilo yi moom digg doomu na ci benn bopp bu ne nga xam ne bu dee yow dong ngay génn rek ñaari kilo bu dee ak sa doom nga def ñeenti kilo muy wéy ba noonu nga koy wàññee dafa mel ne fii nag moom bu fekkee ne mën nga ceeb ceeb nga war a génne ndax moo gën a am daraja te it moom lañ ëpp dunde fii ci réew mi mel na ne soo mënut nag ceeb nga génne pepp moom dana baax incha allah boo génnee murum koor da nga koy jox koo xam ne gor la julit la te loru na ca rek waaw koo xam ne gor la julit la te loru na ca rek boo ko joxee mu daal di baax doo ko jox jaam ndax jaam sang baako kàddul ay mbiram doo ko jox yéefar ndax yéefar lii ak jaamu yàlla la te ak jaamu yàlla kenn du ko jox ak yéefar sarax yi boo xam ne yaa ko coobare rek mu mën nga koo saraxu yéefar waaye buñ ne asaka wala murum koor moom julli rek nga koy sañ a jox te it na ca loru bu fekk loru wu ca doog ko sañ a jox yi ñu war a jox asaka ji nga xam ne moo war juróom ñett la ñoo xam ne sunu borom ci boppam moo leen ràññeel ci alquran ca suratu tawbati dil faqri mooy boroomu ñàkk maanaam koo xam ne dafa ñàkk ku ñàkk nag mooy koo xam ne amul lu ko doy dunde ci at mi amul lu ko doye dunde ci at mi te itam amul mecc mu ko sukkandikoo amul kenn ko gàddul moom du mel ni mecc mu sukkandikoo du kenn koo gàddul ku mel noonu muy faqir mën nañ koo jox asaka loolu nag lu bari la ci réew mi wal miskin ak miskin miskin nag mooy ku amul dara niki moom reeru tey sax amu ko dañoo wuute ci nañuy firee al faqir ak al miskin waaye bu dee ci yoonu malik moom ni ma ko waxee lañ koy firee su mal xaami di topp aji lëggéey ja dañoo jublu koy liggéey ci asaka ya mel ne ka koy laaji ak ka koy séddale ak ka koy wattoo yi demee noonu jubluwuñ dong ba nga xam ne mooy liggéeyal sëñ ba ca tool ba kuñ menal xol nag nee nañ mooy koo xam ne day doog a dugg ci lislaam ñu bëgg nag xolam dëgër ci bu baax a baax bu ko defee ñu jox ko ko di sax nee nañ jox ko kenn ndax bëgg mu tuub di ko campagne moom léegi wees na di su ko defatee waaw léegi daal mayees na ko jox koo xam ne moom day door a tuub ndax bëgg mu gën a dëgër ci lislaam te sax léeg-léeg nga gis ko tuub ay mbokkam jàmb ko wan ko gannaaw mu xat lool ku mel noonu kon jox ko asaka baax na ba tey maes naa jël asaka ji jënd cëpp jaam goreel ko wala fekk jaam boo xam day jotoo ab sangam da koo laaj ne ko ba ma joxee nangam ma goreel la ñu jox ko nag asaka ji mu mën a joxe ndax mu gore koo xam daa gàddu ay bor te ba muy leb kat ci lu mënta ñàkk ci dundu boppam mbaa dundu njabootam moo ko taxam di leb toppatoon bakkanam rek ne naa lebaleb daañu ma jox asaka dafa dafa dafa leboon ci loo xam ne lu fara fara la te nag fay jafe ko ku mel noonu mayees na koy jox asaka la laaye ja wax ne wa fi sabilillahi ak ci yoonu yàlla ñu njëkk ñi ba ci ñenn ci ñu yees ñi ci borom xam-xam yi dañ koy firee jihaad ci yoonu yàlla nga xam ne ay xare ji ci yoonu yàlla des na ko jox ci asaka ndax jihaad ja muy jihaad ca yoonu yàlla am na nag ci boroom xam-xam yu yees yi ñu koy yaatal yaatal ba dugal ci mboolem yu baax yi mel ne jàkkaak daaraak yu demee noonu waaye dañoo wax ne innama ji nga xam ne moo tàmbali laaye ji innama sadaqaatu lil fuqaraa yi innama boobu day takk takk nag mooy nga ne nangam génnul nangam mbaa nangam du génn nangam léegi nag boo ko yaatalee ne lépp lu baax rek dugg na ci fi sabilillahi day mel ne kon innama jooju takk gam doon takk amatu fa te it bu fekkee da nga ne jihaad baat bi dafa yaatu weesu na rek xeex ak yéefar bi ci jees yi te xam noonu sax dëgg la waaye ñoom ñuy wax loolu moom jihaad ci ngànnaay moo tax ñuy wax boolewuñ ci jihaad ci xam-xam mbaalu ko nuru ab doxandee mooy koo xam daa takk ci béréb te amul lu ko tàggante mooy amul lu ko jàllale su fekkee ne fa mu dëkk sax am na fa alal waaye nag amut koo mën a lebal ba mu dem ba foofa kooku teewu koo loro bu fekkee fu mu dëkk nag moom am na fa alal te gis na ko mën a lebal fii ba mu dem ba àgg kon kooku loroo tudd aajo ñu koy jox biñ ne tey la bi sub korité bi daal dañoo bëgg gannaaw bu fajar fenkee bala ngaa dem ci jullikaay ba ñu jullee xiit ga jullikaayu korité ga nga génne muurum koor mi boo yeexee ba julli ji ba ñëw nag na nga farlu ci balaa jant bee so ndegam man nga ko nga génne ko joxe ko ndax bu jant bi soyee te fekk nga mën ko te defoo ko da ngay am bàkkaar ci yeexe ga nga ko yeexee ba jant ba so tey du tee mu war la ba tey nag moom sim nañu gannaaw bu jant fenkee na nga di ko yeexee ndax bootul yeexe gi ak sàggante lay indi maanaam nga fàtte ko far jant ba so ñoom nag nee nañu lañ la wax nga joxe ko rek nga yem ci moo gën nga di ko ëppal nga joxe lu ëpp loola li la wax rek mooy benn bopp bu ne ñaari kilo daal na nga ci yem rek waaye bul ko ëppal loola nag boo dee seet ci xiyaas day mel ni ëppal gi moo gën waaye ñoom nee nañu sib nañu ëppal nga waaw nee na nag am na yetti addis yoo xam ne dañoo ñëw di lu digal ne suñ alal buñ bëggee mu ñoŋ nañ ci génne asaka génne asaka ja moo koy tax a ñoŋ te mooy addis boo wax ne hassinu amwaalakum bi zakati dee leen sëgeel mooy dee leen aar seeni alal ci joxe asaka ak beneen addis bu wax ne na ngeen di waajal balaa balaa ñëw ci ñaan kooku mooy wax ne aiddo lil balaayi bidduhaay maanaam boo ñaanee laata balaay dikk benn ñaan nga tax balaa ba teggi la mbaa bu dikkee weef kon nag xeeti balaay na ngeen na ngeen leen di waajal ci ñaan bala ñuy dikk léegi mu ne wobil mu daawaati nag mooy hadis ba wax ne daawu mardaakum bis sadaqati na ngeen di faje seeni jarak mooy bu ngeen amee ñu tawat na ngeen leen di faje ci saraxe mooy saraxe day tax yow ci sa bopp nga wér day tax itam nga wérale kon nag saraxe baax na loolu dana tax wér dana tax a wérale